Abdoulaye Bob dal leen ak jàmm yéen kaay yu bari xëy amal doxanto ci euh, waxu Sénégal yéen kaay bi fitna gi tàmbalewaat na Walf Quotidien lu ëpp ñetti téeméeri sénégalais yoo xamante ne kenn xamul fa ñu féete euh, te moo ne de ca Kafountine la ñu jógee doon dem ca Espagne jotunoo yegg euh, te kenn xamatul fa ñu mujjee ci biir géej gi yéen kaay bi immigration bi dooraat na mu ngi ci Walf Quotidien yéen kaay bi du Sud Quotidien feelu ko ne Barça wala Barsaq lim bu takku ci ay ndaw jóge nañu Sénégal bëgg a wuti koom ca bitim réew yéen a cabinet suñu wax yi le faw ñu xoolaat ko ndax ñay jogee ca Mbour Saint-Louis ak feneen ak feneen ba Kafountine lule loolee day gën di euh, jur loraange ci euh, ndaw Sénégal yéen a réew mi quotidien li am ba des mooy euh, Greenpeace daanaka àndulu benn yoon ci ni mbir yi di doxee xam le ne jaaxle na lool ci ay ndaw Sénégal yi jël gaal wutali koom ca bitim réew Ousmane Sonko lu ji njàkk du kenn ku dul nguurug Macky Sall moo jotuta taxawu ndaw Sénégal ba tax na seen yaakaar tas maire ne mbir yi euh, jot nañu wut ci solution ndax mu ngi bëgg a ëppi loxo nguurug Sénégal nag mel ni ku jaaxle lool euh, ni mbir yi demee léegi ci wàllu gaalu locco yi yéen kaabi di critique ne Greenpeace moom jot na joxoñ baaraamu tuuma euh, lii di pouvoir public bi politique publique la gis ne moo demeewu ni nguur gee jotut a taxaw askan wi ci wàllum xëy ak leneen ak leneen ba tax na mbir yi dem ba daanaka kenn mënatu leen a téye ndaw yi ñu bari wutali koom ca bitim réew jaaree ko ci gaalu locco yi ñu naan barsa wala barsax yéen cabinet ba ca mujj ñetti téeméeri ndaw yoo xamante ne eh, baw nañ ci Kafountine ba léegi kenn xamatul fu ñu mujjee Ousmane Sonko moom joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi eh, Macky Sall Mimi ture woo na gouvernement bi ngir ñu xool solution ndax waxtu wa jot nañu xool lan moo sabab ndaw ñi di jël gaal yi di wutali eh, bitim réew yéen cabinet di l'évidence xëy di laaj ñetti téeméeri ndaw yu bawoo ca Kafountine wutali waax yi ngir amee koom ca bitim réew yéen cabinet ana fan la FONGIP nekk ana la ANP Jacader ak yeneen ak yeneen kuréel a taxawal ngir ñu taxawu ndaw ñi ci wàllu financement ci wàllum xëy yéen cabinet tey ji la gaal yi a tar Barça Barsaq gën a taxaw yéen cabinet l'évidence xëy duñu ko leeralal yéen cabinet turbine xëy taxaw ci wàcca élection présidentielle yu 2024 njiitu réew Macky Sall mi doonatul candidat ci yooyu la woote waaye tey ji lu ëpp euh, fukki candidat yu APR ñoom jot nañoo yëglu kenn ku nekk bëgg a wutu njiitu réew Macky Sall ci boppu APR ak euh, dagaan baatu askan askan wi eh, ci élection présidentielle yu 2024 yéene cabinet xeexoo gi sax tàmbale na ci diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ay responsable APR ne na nañu ngir itamit défier njiitu réew mi eh, Macky Sall Mame Boye Diaw moom eh, xaarul ndigal jot na fësal candidature am jëm ci dagaan baatu askan wi ci yooyu la woote yéene cabinet di la mandaane candidature présidentielle bi tàmbale na am jafe-jafe ndax am nañu ci dugal bopp rocci la meñ ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar am nañu bàyyi ay njiit réew Macky rek muy doxal waaye nag la ñu euh, fexe ak la ñu nar ñoom daanaka togg nañ ko ba noppi dañuy xaar njiit réew Macky Sall def tànneefam euh, ci candidat bu benno yéen kaabi di le mandat moo ñu ko yëggee yéen kaabi di le peuple quotidien kenn ci candidat benno yi am na kuñ ci lamlame Amadou Ba war a mun a wutu njiit réew Macky Sall waaye nag am na ñuy jëfandikoo ay compte Amadou Ba di fësal ay xibaar ci euh, daanaka réseaux sociaux yi moomale ko Amadou te moomu ko tax mu leen di locale yéen kii bi di l'observateur xëy duñu dégtal euh, euh, parti Pastef bu Ousmane Sonko euh, ci wàllu communication bokk na ci tamit li war a tax Ousmane Sonko mun a moytu la daloon Karim Wade ci 2019 yéen kii bi dikkat na ci yéen kii bi mu ngi ñu dégtal yi tamit Biram Souleye Diop kenn ci jege ñaale Ousmane Sonko mi ñu ne mujjee na kaso yóbbu nañ ko démb su mandat de dépôt yéen kii bi di l'observateur yéen kii bi di Walf tey lu ëpp daanaka fukki cadre yu Pastef yoo xamante ne média dañ leen ko xañ yóbbu leen kaso euh, ku demee ni El Malick Ndiaye ku demee ni basiru Diomaye Faye ku demee ni Fadilou Keita ba ci Birame Souleye Diop ak ñeneen ak ñeneen doonoon ay cadre yu Pastef daroon Ousmane Sonko waaye tey jii yoon tënk na leen mu ngi ci yéen a kaabi yéen a kaabi di 24 heures ne leneen lu tënk Sénégal di mbirum corruption wàllub guerre mi ñu xeex ci Afrique corruption googe euh, kii di Serigne Bassirou Gueye njiital OFNAC jàpp ne ñu taral xeex bi ngir mun ko fee jëlee euh, bokk na ci Amnesty nguurug Sénégal ngir mu jël matuwaay ya ca war ngir fagagal li nga xamante ne mooy guerre bi ci mim réew yéen kaabi di Le Soleil des ci réewum Sénégal wàllub dem ak dikk ci jaww ji AIBD nag la xëy teeri ji di ñu dégtal ni AIBD rafetaate jéego yi ci nguur gi def ak ña fay jëlee avion lim ga gën a euh, takku lool Air Sénégal moom di gën a euh, jëmmal euh, boppam yéen kaabi di stade mu ngi ñuy dégtal Aliou Cissé doxalinam na muy doxalee ci match amicaux yi match xarito yi muy amal yàggu dara Sénégal Sénégal jot naa duuma euh, Brésil tey ji match xarito geneen Sénégal Algérie ci weeru septembre gi ñu jëm ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu football seen yé euh, seen kaddu ci stade rafetlu nañu doxalinu Aliou Cissé ne bile doxalin bu dakkul équipe national bu mag a mag la am ndax say su ne ñu tollanteeg yeneen équipe yoo xamante ne ay kangam lañu ci wàllu football te Sénégal day wone boppam ci wàllu football bile doxalin daal Aliou Cissé bu ko ba ndax ngëneel la ci équipe. Euh, jotaayu xibaar yu wér te wóor a ci réew mi ak ci bitim réew